à vos papilles on retrouve tout de suite euh, euh, euh, pour li mu ñuy toggal tey ànd ci ak diwlin ñaani ak beurre bocage. waaw Baye Cheikh euh, comme ni ko waxee rek ñu ànd ak Sonacos rek dooleel bayum gerte fii ci Sénégal ak huile ñaani déjà gis nga ni commencé naa li nga xam ne mooy préparation Euh, sama gratin euh, déjà pomme de terre yi gis nga ni moom euh, presque ñor na dañ ko précuit déjà ni maa ngi sauté li nga xamante ne nii mooy merguez yi juste rek huile ñaani bi nga xam ni moom ma accompagné lay def tuuti rek ci poêle bi su ma paree aussi ma jël merguez yi daal di koy def nii rek mën naa wàññi gaz bi juste dama koy sauté ak tuuti ail ak sel pour gën a relever goût bi la mais bu la neexee mën nga ko def noonu ci gratin mais boo ko relever aussi dafay euh, gën a am gu gis nga ni am na yu ma tàmbali woon di sauté gis nga nii rek laa koy def ak euh, tuuti aay relever ko euh, damay jël nag benn couteau boo xamante ne ni daf may permettre rek ma génnee ndox bi nga xamante ne nii moo am ci li nga xam ni mooy merguez bi gis nga nii rek dama koy capp nii tuuti ak paaka bi mu dégager ndox bi nekk euh, à l'intérieur mën naa aussi jël li nga xam ne mooy aay bi daal di ciy def tuuti rek ci kawam voilà ñu revenir ko mën naa yokk gaz bi comme ça nii tuuti rek laa ciy soxla mu laal euh, poêle bi ak aay bi ak li nga xam ni mooy huile bi mën naa ñëw nag euh, sama assiette bi daal di koy teg nii à côté gis nga ni. su ma paree nag euh, ci li nga xam ne mooy euh, merguez bi mën nañu ñëw rek sotti ko ci directement ci kii bi débarrasser lii tamit comme ça fii gën a am place euh, fii nag damay xëcc sama benn marmite boo xam ni marmite bi dama def oignon def ay def sel un peu de poivre ak tuuti li nga xam ne mooy curry moom laa def bàyyi nag ba soble bi commencé blondir bu soble bi commencé ba am benn couleur bu marron rek damay jël li nga xam ne mooy crème liquide bi. daal di ko ci sotti gaz bee fayuñu ko voilà ñu daal di mélanger wàññi gaz bi nag bàyyi crème bi ak euh, oignon bi daal di mélangé bu baax pendant nag oignon bi ak crème bi di mélangé wu mën naa ñëw commencer monter li nga xam ni mooy euh, sama gratin crème bi mën naa ci yokk tuuti voilà parce que gratin bi il faut mu am crème bu doy mooy sauce blanche bi may defar ni voilà gis nga nii nag bu ma ko ci sottee ba pare damay yëngal rek bàyyi noonu muy euh, mijoter ndànk su ko defee ma ñëw commencé monter li nga xam ne mooy euh, gratin bi déjà nii dama ciy def euh, comme ni ma leen ko wanoon sànq dama ciy def concombre pomme de terre merguez persil ak yooyu mën naa ñëw rek rapidement dagg li nga xam ne mooy concombre bi en rondelle njarul nag ñu koy xolli comme te ci gratin bi la jëm mën nañ ko dagg rek en fine rondelle voilà. nga nii rek ay rondelles yu fii lañuy soxla voilà parce que dafay euh, doon genre benn gratin aux légumes boo xamante ne nii euh, base bi merguez lay doon pomme de terre ak concombre yi ma nekk di dagg ni voilà oignon bi nag euh, jarul muy bari ak crème bi benn oignon rek soo ko amee benn bu mag wala soit nga jël ñaar yu ndaw mooy dem ci li nga xam ni mooy crème bi voilà gants yi dafa xaw a niin tuuti voilà lii rek euh, dina doy comme ça mooy ànd ak li nga xam ne mooy euh, pomme de terre yi voilà lii dagg nañ ko ba pare mën nañu profité wu aussi émincé waale li nga xam ni mooy euh, persil bi moom it jarul muy sew lool mën nañ ko dagg grossièrement pendant ce nag da ngay préchauffer sa four à 180 degrés voilà gis nga ni damay ñëw jël persil daal di koy def ci li nga xamante ne nii mooy euh, sauce blanche bi nga xamante ne nii moom laay togg nii à côté voilà daal di mélanger gis nga ni nag sauce bi moom daanaka pare na mën naa ñëw sotti ko ci benn assiette wala soit euh, benn bool boo xamante ne nii ci kanam dama koy sotti ci li nga xamante ne nii mooy euh, gratin bi lii mën naa ko teg ni voilà. mun naa gën a pousse fii comme ça ma gën a am espace voilà crème bi moom nii pare na gis nga crème bi nii lay mel mën nañu ko sotti comme saa ngeen mën ko gis bu baax lii nag euh, mooy doon base li nga xam ne mooy euh, gratin bi te da koy gën a jox goût voilà gis nga nii nii rek mën nañu euh, fay gaz bi. gis nga nii nag bu ñu fayee gaz ba pare nag mën naa jegele li nga xamante ne nii mooy sama muul bi nga xamante ne tey moom laay defaree gratin bi gis nga nii bu la neexee nga def ci beurre mais gis nga man tey huile ñaani bi laay jël rek daal di koy def ci li nga xam ne mooy fond moule bi daal def tuuti rek jarul muy bari nag voilà nii rek ba mu takk ci li nga xamante ne nii mën nañu jël suñu gants yi ñu étaler ko gis nga nii rek voilà. bu buñ ko ci defee nii ba pare mën nañu ñëw njëkkee li nga xamante ne nii mooy euh, pomme de terre yi attention lii mën nañ ko teg nii ça daal di jël li nga xam ni mooy pomme de terre yi nga xam ne dañu ko précuit jaxul nag euh, muy ñor bu baax dañ koy def mu yem rek nekk ci diggante ñor mu al dente en fait voilà nii rek ñii rek ñu def ko ba couvrir li nga xamante ne nii mooy euh, suñu muul voilà bu ñu defee benn couche pomme de terre ni ba mu fermé wu pomme de terre bi nag boo koy def da ngay defaale gis nga nii ay bi dama ko écraser rek def ko ci nga xam ni déjà pomme de terre yi dafay am goût ma jël nag trois éclats d'ail écraser ko def ko ak pomme de terre bi moom lañ ko booleel mu précuit ak moom euh, ay bu frais bi nag euh, de préférence ngay utiliser su ñu defee nii damay ñëw rajouter ci li nga xamante ne nii mooy euh, concombre moom aussi. mu nekk gratin boo xam ne dafay riche parce que déjà concombre lay am euh, pomme de terre dina am aussi li nga xamante ne ni mooy euh, merguez bi nga xamante ne ni tey mooy basu gratin bi gis nga ni merguez yi nga xam ne dañu ko jot a sauté ba pare moom la ñuy ñëw gis nga nii rek moom it teg ko ci nii voilà boo ko sauté ak ay bi déjà mu leer na ne que ni merguez yi am na goût da leer ni gratin bi dafay neex voilà gis nga nii rek ñu termine euh, jël li nga xam ne mooy euh, soos bi nga xamante ne nii préparer nañ ko sànq ak oignon persil coriandre ak li nga xam ne mooy crème liquide bi damay ñëw rek moom jël mois moitié bi daal di ko ciy sotti voilà damay desalaat pour ci kanam ma jëlaat pomme de terre ferme li nga xamante ne nii mooy euh, gratin bi. mbuur naan pomme de terre bi bu ko baxal sotti ko voilà gis nga nii rek ñu daal di def pomme de terre bi yëpp waaw nga xam ne dañ koy superposer nga xam ni boo ko daggee ci biir da ngay am euh, merguez ci biir am pomme de terre ak concombre fi mu ne nii nag dañu koy me ci sànq nag avant may teg pomme de terre yi dama euh, waxoon a jiital li nga xam ne mooy gruyère bi comme ça boo ko kii mais dama ko xaw a fàtte mais pour boo koy defaree da ngay def gruyère bi soo koy tegaat pomme de terre mën naa ñëw jël li nga xam ni mooy euh, concombre pomme de terre bi jarul sauté soit nga baxal ko wala nga def ko à la vapeur mais boo koy def da koy def ak euh, trois éclats d'ail nga xam ni dafay gën a am goût. voilà gis nga nii ñu def euh, concombre bi ñu daal di terminer ak li nga xam ni mooy merguez bi nii rek mu def benn forme gâteau. Voilà. attention mun naa jëlaat beneen technique jëlaat beneen technique beneen xaj na fii mën nañu teg fii gis nga ni mu daal def forme bi ñu jël suñu restant wu sauce blanche bi nga xam ni moom lañ togg daal di sotti ci kawam. sauce bi nag mooy doon élément de liaison bi mooy doon élément de base bi bu la neexee tamit mën nga koo changé def ko sauce béchamel mais da nga koy épicer comme nii foog mu am persil ak li nga xam ne mooy euh, mooy oignon bi voilà ñu terminer ak euh, gruyère bi moom it da nga ciy def euh, fromage bi ba mu doy parce que moom tamit dafa bokk ci li nga xam ne mooy élément de liaison yi voilà. voilà gis nga nii nag euh, bu ñu ko defee nii ba pare ba Cheikh dañuy fekk préchauffé nañu four bi ba pare dañuy ñëw rek jël gratin bi directement def ko ci four bi comme te pomme de terre yi ñor na mm. euh, merguez bi aussi ñor na du yàgg quinze minutes rek mm. nga daal di koy génn daal di déguster ce plat bay Cheikh jeex na jeex na kon à tout à l'heure on va déguster euh, dans quelques minutes ak euh, Sophie je rappelle que d'ici quelques jours dinañ leen di proposer recette yi muy joxe ci télé bi ci page Facebook bu yeewu leen daf leen ni gën a yomb pour ngeen di reprendre la seeti seen ay biir kër ak euh, Sophie puisque moom toggaloog la voilà on va on va ñammi ñamme bu ca kanamee comme disait Adja Sy 10 euh, h